Uh-huh. ahlan bikum suba la tabaski waaye sénégalais yi fañoo mel ni daal fañoo fàtte ne korona baa ngi fi ndax niñ koy waajalee mbooleem luñ doon tere ngir bañ mbas mi wàllante fi mu toll ni fañ koy def le quotidien yéene kaay moo ñu ko xamal yaw seetal demal ci garage yi oto yi fa ñuy duy ay client ba mu fees rembat di tuuru xam na ñu ca takk masque xam na ñoo xam ne takkuñ masque fa ñuy toog sëslantoo ñu ne déetawaay nga dem ci marché yi nit ñaa fa fees dell ñu bëri sa ñoom takkuñ masque fa ñuy ñuuxante ak a joxante loxo si du quotidien na ko hee gis nga loolu nag buñ ci waxut boo mooy tuwu tabaski bi bu weesoo musiba naarul laay corona bu tasaaroo ci réew mi moo fi nar a xam ah bu nekk fa ngay dem tabaskee ji fa nga fekk baax léegi yàlla tere ñay dem di tabaski ji mën nañoo yóbbuwaale corona fañ jëm su boobaa nag muy xaw-xay yéen a kaay bi ne moo taxit jëwriñ ju ñu dénk wàllu wér-gi-yaram moom fa wax sénégalais yi ne kenn ku nekk fa nga nekk toog fa nga tabaskee fa jëwriñ ju ñu dénk wàllu biir réew mi moom joxe ndigal ku nga dem kon ñoom ñaar seen kàddu yi fa waroo ak corona bu tasaaroo bii nag jumaa yi fañ lañ di tëj ci bi l'observateur dëgg ndax njiiti réew mi Macky Sall moom këram Mermoz fa la jullee tabaski ndax grande mosquée bu Ndakaaru fañ koo tëj ba léegi kenn du fa jullee tabaski tabaski ren ji nag jafe-jafe yu mag ci la fekk réewum Sénégal ñàkk xaalis ak corona bu tasaaroo waaye ànd ak loolu yëpp lii yéene kaay nee na sénégalais yi far force fara force doole mbaam fa ñuy xamal tabaski feete ko ba mu neex ba fu mu yem neex pour sénégalais yi nekk fi naan corona beeg buñ ko feeteeg nañ def nii ñi àndoon ak uno band yu mag yooyu ñu jàppoon leen caatam yëngu leen ma bokk na ci ñi makki baal ci tabaski bi tabaski gi nag benn fana ci des waaye accident yi tali bi oto yi rayagum nañ juróomi nit aay ni ki démb rek réew mi yéene kaay mel ni ku naan chauffeur si ngir yàlla daw leen dànk ndax dem di tabaski ji dee ci accident dara gënu ko métti nay leer laneen lu leer ba yegg ca ñi ja mooy na professeur Seydi mi ràññeeku lool ci xeex wàllu corona bi waaja ko agressé woon dal ca koom wax ko wax ju ñaaw ginnaaw bu ko gaañu jàppee professeur Seydi dem na jàkkaarloo ak moom dama don keuteli saga ak ak agressé xanaa xamoo bi ngay def lolu fekk na man sama dom bu jigen mom la sul ba genn fa fatu l'observateur ne waja Amadou gey la tuddu xam mom fa màcc ci wàllu oto ca keur keur lañ ko tege loxo muju nañ ko defeere kenen kuñ nara a moy ha policier stagiaire bo xamne mo jité won songu sacc ak boutique dajji digg bëccëg ndara kàmm ca allée mer ba libération nañu mohammed Gassama la tuddu wéru soin wi weesu rek tegon nañ ko loxo ci walu sacc auto man ma sacc wax lem ne njiit réew Macky Sall fa melni dal contane ci wa orange yi tarif ñeug yu bees teg ci kaw sénégalais yi laas yéene kaay ñu ko xamal la solo yéene kaay dëggal ko conseil des ministres démb Macky xam nga lan la wax waa ARTP yi hëy faa bëgg ngeen xool bu baax kër téléphone yi communication bi numérique bi ndax li ñuy jox sénégalais yi baax na ci qualité liggéey beeg réseau beeg yi ni mel waaye tamit prix yi li ñuy jaayee sénégalais yi xool leen ba xam sénégalais attan nañ ko la mu attan moom Nicolas Sarkozy ki fi nekkoon njiit réew bu France ko nettali mooy digganteem ak Ablaye Wade rawatina kàddu yi mu yëkkati woon fii moom Sarkozy Dakar te yaakaaram ci ba muy jiite France ki jiite réewum Sénégal tey nag mooy Macky Sall yéene ba mu amoon ci jël Babacar Touré tuddee ko maison de la presse dal waaye taskatu xibaar ya yéenam ba dëggal na ko conseil des ministres bi weesu ca la ko xaatimee kon kay yëf leer na tàggat yaram Ismaïla Sarr ginnaaw bu équipe ba wàccee deuxième division Watford Angleterre fi mu toll nii équipe yi mag yi ci Europe ñoo koy xëccoo waa Atlético Madrid ne soxla nañ ko record a a Ismaïla Sarr Koulibaly Crépin Keita Baldé ñooy coow ci àdduna bi coow lu mag li nag France ci wàllu football tey ci ngoon la Paris ak Lyon ñooy finalu coupe de la ligue ba tax stade yéen a kaay ne Gana Gueye su équipe ba gagné jël coupe ba dana def loo ne benn Sénégalais musul koo def mooy jël ñetti coupe ya am France yépp championnat coupe de France ak coupe de la ligue benn Sénégalais musu koo def de la mu defoon moom Balla Gaye 2 fanweeri fan ak benn ci weeru juillet 2011 mooy jàpp ki xam ne moo doon mbërëm di soppem di fansam di roy waayam ay timis la ko julliloo boole ci mëqalaale ko suuf mu jóg taxaw mel ni kuñ puudar suba nag mooy 31 juillet 2020 juróom-ñeenti at anniversaire u jëll bu rëy ba mooy del siwaat man ma del siwaat ak yéen ci coowal tabaski gi waajtaay bi Sénégal ñàkkum xaalis ak ku nekk na koy lijjantee tey nag vox populi ne xale yi jigéen ñi ñoom yàquñ ko fenn ngir daal seen affaire dox ci tabaski bi lépp luñ bëgg am ko moo xam jen si neer la cheveux yeeg takkaay yeeg dàll yeeg saag yi xam nga fan lañ ko wéer ñoom mbaraan mu amul xàpp juróom benn fukki far ak juróom sax bu laajee ñu xam ko fa ñuy teglante rek di mbaraan rek di mbaraan rek bu la sàmba jëndalee lii dem ba jëndal la lële fu nekk boo fa mosee dara rek sa tabaski neex yéene kaay bi ne waaye nag ay mbaraan xale yu jigéen fañ koo ñàkkal fayda pour ñoom léegi du dara c'est comme lu normal la lu dagan la lu rafet la et lu jaadu la te fa ñoo fàtte ne xol moom benn la kenn rek la mën a bëgg góor ña ngay dajal nag di leen mbaraan naan hay dof leen faa leen di lekk yow moomu yaay dof <laughs> baax na may ragal réccu am ëllëg de ndax xale yu góor yi tey ay bala ngeen leen a nax may ragal ñu nax leen yéen